bu jour ba moo sax moo loo yëkkati sama loxo sama dem ndam la amul dara loo xam ne dama koy commandé bëri laa laa gis. ndam doo ko amee baax na. mais am naa question pour waaw. tey ku ku xool adversaire am di nga gis ni moom dafa am ay sparring partenaire yoo xamante ne am nañu taayu Ama Baldé peut-être am nañu bëri Ama Baldé am nañu rapidité Ama Baldé ku mel ni Garga 2 Dame seen Franc Goro Sock ba ci Talfa ñooñu yaakaar naa ne ku leen am ci préparation am nga ay vrai partenaire ma bëggoon laaj Ama Baldé moom instant bi ñan lay jàppanteel ci combat bi nga xamante ni mën nañ am mën na mën nañ ko jox li mu soxla ci Modou Lo. waaw xam nga moom dangay jéem rek làmb moom dangay jéem da fi nekk say rakk ku su mel ni ku su mel ni ñoom Babacar Baldé ñoom Paa bi ñoom Ousseynou Mané ñoom Soxo Baldé comprendre Ikri Fallaye comme ñoom Malo Seras tey même luñ ma jox jox jox jox jox mënuñoo doon 100 pour cent Modou dañ may jàppal si entraînement yi comprendre Modou Lo tamit aussi ñu koy jàppale jàpp jàpp mu ñoo doon Ama te bokkuñoo ak Ama comprendre comprendre ku si nekk rek day am koo xam da lay jàppale waaye yooyu yëpp amul sens ku nekk Modou Lo moo ñu liggéey loolu dañ ko koy sant bu baax a baax mu nekk koo xam mu nekk loo xam ni képp koo xam ni day yëngu si làmb dana si war a imiter Modou Lo xam na xam na muy na dajale sa gox ñeen ñëpp na doon roi des arènes taayi woo dam moo comprendre na woo ñëpp na ne ñëw la ñu entraînement loolu dañ ko ko si remercier bu baax a baax a baax comprendre te tamit loolu la hmm. war a def am na ñoom Franc mm. jàppal ko jàppal loolu war a def parce que mooy seen roi am nañu ay mboq nekkul ñun da nekkul ñun lépp la ñuy def rek pour wane ko képp koo xam ne moo ñu Pikine di nigu Pikine di doomu Pikine moo may jàppale biir ak biti comprendre dina ñaan yàlla ndax yaa ngi am contact ku mel ni Eumeu Sène wala Boy Niang non non xam nga lamb bi weesagul un mois moo si des dañuy dem uti di doole boo uti jee doole nekk sa waa écrit di contact comprendre après bu desee ñoom ñëpp nañ ñëw wax dëgg yàlla ñooñu déggante nice dañuy naan yàlla suñu borom defal jàmm ñun ñëpp mhm. ama Modou dégg nga ama ama ci utum doole la toll. ah mais noonu la lu mu doyul affaire yi moom. <laughs> ko làmb la ñu rek. a ah, non mais doole moom lu ci am du doy a ah. làmb jëm lu ci du doy. wax hmm. hmm. na loolu lépp incha allah. mais ba am lu ma am na lu ma laaj Modou Lo. waaw bismillah Fadam. Hmm. mais Modou yaakaar naa ne ñëw nañ foofu mag Lamine Seck ñu yaatal ci waxtaan wu am solo. nga am loo ñu waxoon te loolu nga ñu waxoon tey jii tey confirmation bi day jot. ndax Modou Lo Ama Baldé mii nga jàkkaarloo ni tey jii ndax gis nga ci moom lu la jaaxal ci moom ci wàllu bëri ak xeex. non amul mbër muy taxaw may jàkkaarloo ak moom di xool ci moom lu ma jaaxal non comme ni ma wax man sama liggéey moo a intéressé te loolu laa gëm dama gëm ni mbër mu mu doon suñu jàppante maa la Hmm? man ku ma xam non non ku ma xam ci loolu laay dox man aw ma mbër bu may taxawal de am ci yow ay xel ñaar ay lii laay moytu wala lii wala lii non non jamais non su ma def loolu sax ma dem xooli leneen non. mais mais dafa am benn góor bu ma jàkkaarloo maa la mën. Hmm? mais bañ ñëwee bañ ñëwee foofu mag la mi sekk daa am loo waxoon. Hmm. mooy Sénégal dafa yi nga xam ne dañoo nekk ci làmb ne Modou Lo sikkam mooy ñàkk arrière ci làmb. ndax mën nañoo jàpp ne Modou Lo mi bu ko Ama Baldé gëddee du ko arrièreal waaw làmb de lu mu laaj làmb ji lu mu laaj dinañ ko def mais làmb ji moom gëwuma ni laaj na arrière incha allah kon kuy ñëw la kay ñu ñëw ñu daje rek. mais ama ak ndel bi nag ama a jàkkaarloo war a xëppoo gàllaaj bi Jules Balde jox ko déedéet. mais gannaaw sa version de euh, làmb loo mun a lu mun a ne <laughs> mais gannaaw da wala nu mu dee noonu. non version ci lan. mooy ma ne la làmb ji laa wax laajul arrière bii kay ñu daje la incha allah. je pense te mbër bu tool du wax je pense que. je pense naa yow xanaa xanaa xanaa déggoo olof wala déggoo li ma wax. yaa ngi mois moo mois weer. dama la man am rëdd yàgg na xam nga yow yaa ne ci utum doole nga toll. non mbër fu ji wala ñoo man dama la. Modou Modou mbër fu mu toll day ut doole. mbër moom baax na doole si non am rëdd laa la wax All right. tey kay lañ. loolu lañ koy ñaan bu pare ah. Ama mu ngi Ama mu xool Moodu di ree Moodu di xool. parce que bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa mbër. xam nga ku sañ ku sañ bu doon bëri mbër bu pare cent pour cent. ay ñëw bëri mbër xam nga muy kala wala lii matul wala lii matul. ñoo ki nekk ci forme xam nga boo ko daan lay doon. yow moom la loolu sa débat la mbër boo bëre ne ko parewul yow moom loolu moom sa slogan la loolu sa slogan la loolu moom loolu sa slogan la loolu nekkul sax dañ koy calculer wala dara mbër boo mbër booy bëri la naa ko parewul loolu dañ la koy nangul yow yaa pare yaa oye ban mbër ban mbër nga dégg ban mbër nga dégg may bëre moom ma ne ko parewul ban mbër yow bëri na fi baala ngay ne ko sa biiru dañ koy asak lu nekk pare woo ah, xam na loolu yow théâtre la la gëm moom na gëm rek lu gëm moom mhm. na gëm ne athlète la na gëm ne entraînement kat la na gëm ne day concentré wu si entraînement na gëm lépp na gëm lépp na gëm lu mu gëm. loolu ak bu lépp weesoo bu lépp weesoo ay fii ku nekk sa fii ku nekk sa préparation ku nekk na gëm li na gëm rek. comprendre ah non sama ngëm ngëm moo ma ci jëlee. sama ngëm ngëm kenn mënu ma ci jëlee. bës bës ku yóotu sa kër. ne nga ne nga ne sa or la. sàcc du dugg si appartement naan maa ngi sàcc. bugul sàcc. mbaalu affaire bi da ngay sàcc affaire bi nekk la rose. jaru jaru jaru jaru jaru jaru jaru mu naa ma pare naa wala pare moo pare moo waaye maa mun kii jëmm ji ma ko mun. Ah, kii sama bopp xam na jéeg buy xam na jéeg buy sëy si kër day bëgg ñu teral ko or teral ko jamaa teral ko lépp. waaw kii sama or la moo tax ma bëgg ko di ko nëmm chaque jour di ko a gis. sa or sa or dina la jàpp caxat caxatee la nga sa non yow da nga yabaat. Moodu avec plaisir na caxat caxatee man góor laa waaye doo daan. Ah, waaye. mun na ma duma ba sama laa ma xam waaye dama ma maa la mun yow. yàlla baax na yàlla may tarak fekk loolu waxu mbër la rek da nga toog jaaxaarloo léeg-léeg di wax. bu ñu eh, eh. yow doo wax loolu. man sama sama live laa la wax mun na ma xamee léegi ba mu des waxantu laa wax. man du ma wax da ngay da ngay wax loolu daal rek. man du ma wax si laam rek. bilaay da ngay wax loolu daal rek. non am nga toog kontaan nii di wax am na da ngay wax rek li ngay wax nañ yàlla may talak fekk wala cinq rek incha allah di nga wax leneen la cinq. mais du lii ah mbër bu toolee weer kontaan moom sant yàlla la moom boo toolee. dawal la dawal la dawal la waaw non mën nga pour béykat sa mën nga pour pour supporter rek. mais li xam ne man utuma lu ma lu neex si nii man yàlla rek laa gëm utuma lu neex. dawal la saa waay fii gënu fi gëm genn yàlla. loolu gën gëm waaw lu neex ni ay lu non loolu utuma ko. dawal la mais li ngay wax dawal la. bala cinq lépp na leer. jarul wax ñu bari wala fañ loolu loolu ndax di ko waxaat incha allah. Moodu loolu rek laa yàqandi Moodu. dañ ci yàlla yow ak jaamu incha allah. waaw ah, allahumma amiin na ñaanal ñu rek bis bi gën a kii ñu aar bis bi xam na taaral aar bi ba bis bi bañ a yàqu man loolu laay wax man loolu chaque jour man loolu laay concentré wu nañu aar bis bi. ñun duñu yàq bis. vraiment muy man muy man muy li Nicolas muy képp képp koo xam da ngay dem di ñaan lu rek dama ñaan bi bis am. comprendre cat bañ cat bañ ñëw dugg ba cat bañ say dugg comprendre na ñu ñëw bi jàpp ko daan ko jël bu rëy dem. bu yàlla defee jàmm rek bis du bis du yàqu ci jun quoi vraiment. ah man de du yàqoo si man parce que dama laa xiif franchement. non wallaahi maa la gën a xiif téeméeri junni yoon. ah kon jeex na kon nañ daje. <laughs> yàlla baax eh, eh, allahu akbar man dama xaw a jaaxle tuuti ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mais dafa mel ni Modou Lo dafa am conviction que day dóor Ama Baldé mu daanu Sénégal supporter Modou Lo yëpp fu Modou Lo dóor Ama du baax amaa looy wax ci loolu. waaye dama ne xanaa déggoo lu xanaa xanaa déggoo lu ma la bëgg yow. ñëwal ma dégg la. bu ma mënee dama rey. amaa bakkan ban ban bakkan bi moom moo ko yàllaa ko ma bakkan bi yàllaa ko moom waaye dama ne la moom rek laa yàqamti. Modou Lo na ma duma bu ma mënee barki Serigne Saloum Mbacke Modou Lo duma ma bu la ma. Hmm? Modou Lo góor musu laa wax lii ci àddina. ah non am yoo xam ne moom comme li ma rek waxu mbër la. mais nag yàlla may talak fekk ba bés ba wax dëgg yàlla man géew la géew laa gën a mën sax ay vraiment. waaw hmm? ah man de maa ngi doog a dàq sant mbër su ba ma dalee bëri ba léegi. man damaa amul géew damaa amul tax lan moo a mën géew laa a mën. a man déggu ma ne. tey biir mun géew moo kañ ma naan ku dàq bëri ku dàq yàlla na la yàlla may ndam bañ a werante si ko wax ci kar Modou Lo man mun géew laa wax xam yoonu géew xam nu géew mel moo tax ma naan ku may bëre yàlla la yàlla yàlla ku dàq bëri ku dàq xëy yàlla la yàlla may ndam ku si gën a sonn yàlla na la yàlla may ndam. amin incha allah amin ku ci gën a sonn Ama dafa mel ni dafa am coono ci làmb ji. non ban ci suñu carrière yëpp coono la nekkul làmb bi la am coono préparation boo gis coono la. Mhm, mhm. waaye man sama ruwaaree sa dama see daj coono am na ñu ne euh, Modou Lo fu mu toll nii ama am ama am na ñu ne Ama Baldé dafa nekk di nelawloo Modou Lo mooy ñu naan combat bi dina am ak du am nekk ci ruqam te Ama wax na ko léegi nee na kuy yoddu sëqat Modou Lo est-ce que Ama mun na la mun na la bëlde ci combat bi jaay la nante no li may wax xam nga ku ñu nelawloo mooy kuy xaar ba combat wala ñu ne am nga combat nga ci a nekk man ku ma xam ci liggéey nga ma xamee maa ngi la wax maa ngi accompagner su may gars depuis maa ngi woon su may avant pendant dama ciy nekk et après dama ciy nekk moom laa la moo tax ay bëldeeg ay dafa yow dafa lii yàlla na ko jàmm dara rek allah man li ma war a nekk maa ngi ci. boos kii musul daan luur luur yëpp dafa niil ak ñoom. dégguma musul daan luur yëpp dafa niil ak ñoom. sa grand du luur de ah ponkal ponkal yëpp dafa niil ñoom. ma ne sa grand du luur sa grand luur yaa sa grand kooku. dégg nga ëmb seen rek vingt dix ans yëpp ëmb seen rek na mun a wax. waaw waaw dama lay wax yaa sa wala sa grand boole woo ko ci 10 ans yëpp laa la Eumeu Sène rek na mun a wax. wala sa grand boole woo ko ci boole woo sa grand. dégg nga la 10 ans yëpp laa la Eumeu Sène rek na si lim ñoom supporters yi wax ñu jaay saa jox la victoire. waaye bonkal mi lay bëreel mbër mi lay bëreel. man du ko suuf 10 ans yëpp dama Modou dama la du ma fi nekk dama la du ma fi nekk li mënte ak yow. dama wala jaru mu ñuy nax laa la wax jaru muy nax sénégalais yi dix ans yi laa la wax Eumeu Sène rek la si daan eh. calculer leen ñëpp daa tàppante ak ñoom daanu si kenn xanaa xanaa sa grand da nga ko génne ci yi ban grand sa grand Eumeu Sène da ah. yi li ko ma la dix ans yi benn tey waaw tey kon bu ñu nax yàlla yàlla def yàlla def na ni roi des arènes mu ngi sama loxo. kon ndaxante yooyu neex na. ndaxante boo jël roi des arènes boobu laay foqatu na la kaay. non da ngay wax la neex rek. <laughs> wallaay da ngay wax la neex rek. maa ko fa maa ko moom maa ko fa maa ko. naa naa naa da ngay wax la neex rek. loolu mo waxu mbër la rek quoi. waxu mbër la quoi vraiment. mais Modou Lo Modou Lo Ama Baldé bi nii mu ko gisee nii dafa gëm ne jàkkaarloo yow la cinq moo ko tee nekk roi des arènes. day bégal ay supporters am rek c'est normal nag mu waxee nii pour bégal ay supporters am te ñoo naan ay liiw ak liiw ak lale ay waxu waxu waxu pour bégal lay wax nga xam ne lu muy wax nii du ja. bëgg sama supporter moo tax mosuma jàmm sama supporter. luñ bëgg rek bëgg naa ko. Ah, moo tax moo tax ngay li mais xam nga yow li nga wax. man ku bis waxoon gëmoo ko man mosuma jàmm sama supporter mosul maa jàmm sama supporter ba mu metti na ñëwaat. ma damay toog sama supporter mu metti mu neex ñu bëgg ma toog ñoom mu metti ma toog ñoom du ma mus a daw maam dërëm damay toog maam ñaar dërëm damay toog. mais buzz. man gis naa gis naa ci Ama Baldé kon ko fii ci plateau bi. c'est normal kon kon c'est normal c'est normal kon ma bëgg sama supporter dama leen bëgg. ñu bëgg ma. non fii fii am supporter bëggante ak ñoom parce que tey lu ñu yàlla def tey ñoom la. supporter da nga koy supporter da nga koy nawloo respecté ko. dama la dama la fu ñu toll tey ci làmb supporter dañ cee bokk fii kenn du jaamu supporter am. waaw kon jeex na kon dañoo war a bëgg suñu supporter. ah oui non mais nag wax li nga gëm li ngay wax gëmoo ci dara loolu xam nga ko. waaw man man du ma def lu ma gëmul. non man yàlla def lu ma gëmul. li wax gëmoo ko booy. waaw kon jeex na kon ba bis ba wala cinq mhm. incha allah. mais ama am na spécialiste yu bëri yu ne amul benn pied droit bu mus a daan Modou Lo ci carrière ñett ñi ko daan ñëpp wala ñaar ñi ko daan muy Bombardier ak Balla Gaye yëpp ay pied gauche lañu. mais moom daa tële pied droit. daa tële pied droit. Hmm, ba man ñaar yëpp laa amoon yàlla dimbali na ma loolu. grand droit la doon teg wala. mais mais mais moom daanaka du la kii mais 10 ans yi grand bi rek ñu a wax baal grand bi. waaw amul la dama ne la man xamewuma ay góor ak droit ci làmb. làmb bu ma xel may ma def. buzz. waaw nee ko bu waxtaan bëggee neex na bàyyi grand bi. Hmm. dama la dama ay góor ak droit rek. non non yow yaa yaa yaa fi indi sa waxu grand ah vraiment. non non dama ne la bu doon man kese dinañ fi wax ba jóg duñu tudd benn mbër. yow yaa fi indi wax jooju. mais dégg naa ne léegi ngeen wax waxu supporters yi est ce que lamb ji bii dix mille la mais Modou est ce que tamit euh, Ama Baldé nga xamante ne mu ngi dëkk ci buntu stade bi est ce que ses supporters dinañ am fu ñu toog. non loolu moom vraiment aw ma ci xel ñaar quoi. aw ma ci benn xel ñaar Pikine boobu mu dëkk dama fa bëri ay supporters trop Pikine ci boppam. ah gars yi de nee nañ fi mu toll nii autorisé tuñu kenn ku dëkk Pikine ku sol su yëre Modou Lo. waaye buzz c'est normal gi na àdduna booy def lu rafet gox boo yoon bëgg la waxu fu rek lay wax buzz hmm. hmm. booy def lu rafet gox boo dem ñu bëgg la c'est normal waa Pikine bëgg Modou Lo parce que day day def lu rafet loolu du hmm. problème waaw booy def lu rafet kër gu mu nekk moom kër gu mu nekk rek ak ñu muy man leer na ma am na ñu ma bëgg am na ñu ko bëgg man tam ñu may am leer na ma ne am na ñoo xam ni buy bëri dañ du problème. mais mais bii xalaat nga ni yow yaa ëpp mobilisation Modou Lo dix mille la vingt cinq mille cinquante mille deux cent mille. no non damay bàyyi waa Pikine waa Parcelles fees fa dellu parce que Ama Yébé koy déranger. ah woo nga dégg loolu laa dégg Ama Yébé. waa Pikine toog lay xaar ma gàllee. Eh, waxu comédien la quoi maa xaw ma ay photo ay wax man su ma amee lu may déranger ci làmb ah bëre ñaata ñaata temps de carrière am lu may déranger ci làmb làmb dara déranger wu ma ci lépp daf ma ci neex ay comme li wax yéen di mentalité vraiment ay mais mais Modou Lo li ma ko bëgg laaj ban Ama Baldé la bëgg gis la cinq ban Ama Baldé nga bëgg a gis. daje non dama la bu pare à cent pour cent ñëpp xam ne pare na boobu laa bëgg gis. wax naa la kenn bëggul daan medd vraiment kuy bëree isam la bëgg nga bëril ku nekk cent pour cent ñëpp ne kii moo ngi ci forme te ñëw faxas ko jàll loolu lay ñaan. mais Ama bu nekkee à cent pour cent est ce que mën nga ko faxas jàll. non non Lamine waxal leneen waaye wala yow gan nga ci làmb. waaw man kay dama laaj. ndax Ama bu nekk dama la ku pare lañ gën a mën ci moom dara vraiment. ku parul moom ku parul daa am sax courage jàkkaarloog moom vraiment. Ah, euh, euh, am Ama Baldé dama gis Modou Lo ne chaque jour moom jàpp ne lu am Baldé mais waaw Fadam bul dem foofu déggoo li Modou wax léegi Modou Lo nee na ku pare la ñuy am courage bëri mais ku pare wul dañ koy faxas. waaw Faram Faram barke Serigne Saliou Mbacke Modou Lo lu ma ko dala topp yëpp mosuma ko gis. dégguma. sëñ Saliou dama ci wax. est-ce que yaa ma dégg. ko gis. benn yoon laa ko mos gis ñu toog waxtaan ma xam ne ki maa ko mun. dégguma sama carrière musuma ko gis. billaahi wallaahi wa taalaahi musuma ko gis sama carrière maa ngi koy doo ko teg bët doo ko teg bët nii muuloo gis ko nii. sama àdduna ba mu juróo juré ba léegi dañuy daje nii rek vite fait waaye toog nii mo xool ko carrément ñu xoolante loo boog lu yàgg toog maa ngi koy doo ko gis. yii du ko daan da ni nga ko gisee nii ko xeeb. barki barki Serigne Touba Mbacke barki Serigne Fallou. Mm. naan dama waat dafa tuuti sa bët wala lan. non dama dafa dafa am dafa am dafa am nit ñoo xam dañuy daan ñii ñii ñoo ñii ñoo war a daan Ama ak ñii ñoo warut a daan Ama. mbër laa <laughs> mais li nga waat nii da ko li mu waatoon li mu waat nii da ko waatoon contre Malick Niang waat ko contre Papa Sow. ne daan. te loolu da ko defaat. seen diggante non kii ba mu gisee sama xel dafa gën a daal. dama <laughs> <laughs> comme xam nga bés wóor yàlla dama ne dama sama xaar dama ko doon yàq pendant temps yi ma toog yëpp dama doon yàq sama xaar billaahi kon dix jours yi nga dem yi nga ah, par la force la pour ma dem fa parce que foofu laa am mm-hmm. par la force ma dem fa nekkul kenn ko moo tax ma dem fa dama fay dem parce sama sama mbokk lañ sama deret lañ fan laa sama pap fa la sosoo ma nekk xale nekk fa comprendre kon awma lu lu Guinée nit lu sa mbokk maa ngi woo mm. fulaadu yi yëpp yëpp yëpp yëpp képp kuy fulaadu rek maa lay woon na jàpp si combat bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. combat bi ñaata million nga ci defagul fi mu taxawee léegi. non man kay ñu ma jot a yàq laa kii su ma gis kay nu ma si def taw. mu <laughs> ne ama xel na la de. ah non waxu lay wax rek xam nga li muy wax gëmu ko xalaay. Modou Lo ñaata nga def yow ci préparation combat bi fi mu toll nii ci côté social bi non man laa nekk vraiment. loolu laa kiifee ci laa nekk. mais Ama mbir Ama. ñeen ñor leneen ñu man samay entraînement laa géré vraiment. Ama Baldé waaw bës daal maa ngi topp sama maa ngi topp sama laam ku nekk si entraînement xam nañ ko ku nekk si entraînement xam nañ ko. Mhm. mais dama la waxoon benn baat dama sangu te nelawuma. Hmm. da ngaa sangu mais nelawoo. nelawuma de. Euh, bës balaa ñuy jeexal prix Mhm. liñ ci bëgg dégg ci Ama Baldé dégg kuñ ko ci liñ ci bëgg a dégg ci Modou Lô aussi dégg kuñ ko ci. parce que Ama nee waa kër nañ ko xaar. Lamine fi nga waxee noonu mooy côté mobilisation bi parce que combat bi dégg naa dafa am lu xew ci côté historique diggante cosaan ak xaw ma bokk jëf. wala diggante Pikine ak parcelle ci côté nawetaan def nañ ko ñetti édition moo tax combat bi nag duré cinq ans mu mel ni waa kër Ama Baldé yëpp dañu mobiliser wu pour dem feesal arène nationale waa kër Modou Lo itam mobiliser wu pour dem euh, euh, bëgg nañ xam côté mobilisation déjà Ama Baldé lan lay waajal supporter bi. waaw loolu loolu loolu lañ loolu suñu grand Pape Sarr comprendre moom wax dëgg yàlla moom dafa ba làmb taxee ba léegi daf nañu amul dara loo xam ne yaa ngi koy concentré lu sa nekk sa entraînement tey boo gisee fii tey tey si kër euh, kër kër Cheikh Fall lañ defee fii parce que ñun ñëpp ay famille lañ moom la tuddee doomam muy Cheikh Fall mu nekk ku baax koo xam ne sama xarit la comprendre boo gisee ñu naan ama fan yëpp dafa lëlu man fii fii laa nekk su ma jugee entraînement fii laa ñëw toog hmm. comprendre di waa di woo waa Pikine yëpp di woo Pikine bi yëpp ku lim juum na leen làmb bi seen làmb la comprendre hmm. seen doom la uma seen maa ngi koy woo am na message bu garaaw a boo xam ne lancé na ko lancé na ko Pikine Pikine waay hmm. nekku ba fi woon Pikine waay yëpp nañ ñu vidéo yi kon dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm si affaire boobu comprendre di woo Pikine bi yëpp tamit naan leen affaire bi nekkul kenn ku dul maa ngi muurloo comprendre nañ toog bu ñu waa parcelle gër gër a gore bu ñu yee si dara comprendre na mhm. parce que boo defee dara ñu ne waa boo defee dara boo defee dara boo defee dara ñu ne waa Pikine waa Pikine kon toogaan nañ yegga ah, toogaan nañ ñagaat suñu bopp bu baax a baax xam ne ñun dañ ñuy colomotive rek comprendre na surtout ci face à face bi dégg nañ ay pompe à gaz ak yooyu bës ñun julli lañ duñ dugg si ay détails barke seriñ Touba mhm. ku tooñ xam nañ ku def na suñu doon ku saboote xam nañ man ne man Ama Baldé su ma nee jàkkaaroo Modou Lô di ko saboté yàlla moom Modou Lô yëkkati ba si kaw dóor suuf duñ saboté tey man man a Modou bu ñuy dem bu ñuy ba may dem bay dajante moo xaw ma woon ne na si àdduna ak képp ku may bëri si àdduna tey laa la dama lay respecté parce que ku bëggul ñu ku ku bëgg ñu respecté da ngay respecté ak ku mu munti doon man Modou cër rek laa ko jox te cër laa koy mos jox si àdduna. Mhm. comprendre kon du ma mos a digal samay support naa leen def leen nii def leen nii def leen nii lépp lu ñu digal muy ma lu muy lu ñuy wax naan ay ñebe loolu man maa ko sotti du ma amaatoon leneen dama koy sot a man maa sama responsable loo xam ne man maa ko def. man maa dem ba foofu sotti ko man loolu sama responsable du ma ko weddi man du ma weddil góor si kaw suuf tonkol du ma ko weddil man maa loolu man maa ko def te buñ ma hmm. joxaatoon defal dara ma def ko mulloo loolu dong la surtout. waaye amul leen loo xam ne yàq nañ ko pompe à bu buy am barki Serigne Saloum Mbacke bu fekkee jënde wuñ pompe à gaz nañ ma daan bu fekkee ñun ñoo ko jënde ñoo ko indi yàlla na ma daan ñun ñun ay góor yàlla lañ ñun duñu dem fenn laa la wax di gànnaayoo gànnaay parce que dañoo wóolu suñu kàttan wóolu suñuy loxo comprendre kon duñu dem fenn di dóor pompe bu fekkee ñun indi nañ pompe à gaz gam bi wala ñun jagleel nañ combat yàlla moom Modou Lo daan di daan tam xale bi li nga doon wax ay mbër bu njëkk la loolu lay wax mu toll nii nee na lu mu am dala koy sotti par force te doo ci mën ah, lu mu am na indi man loolu dérangé wu ma vraiment. waaye hmm. ma gan ci làmb ay yooyu yëpp ay kii rek ay caaxaan la rek. leneen lu indi na leneen lu mu am na indi loolu du problème vraiment. ba ci district beeg lépp. yaa may lu mu am na indi. maa ngi jot ay ay ay